asalaamaaleykum mbokk ami internet univers info live SN ak ñi nga xamante ne ñooy Bprod Media comme niñ leen ko waxee ñu ki sànq nga xamante ni information bi lépp ci suba mi ngi daw ñu gis ko suñuy naataango yu bëri yoo xamante commencé nañ ko relaté ñu ñëw fi nga xamante ne fii la amee mooy xar yàlla ñu jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy yaayu xale bi nga xamante ne moom la dof ndey ah, jàmpaaka bi mais balaa ñëw dugg ci waxtaan bi ñu nuyu ko mamaa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. man la Ndeye Ndiaye laa tudd. waaw. maman tey boo ñu doon ñëwaatal ci li nga xamante ni mooy jëf ji am lan nga ñuy wax ci loolu. Ah, man ba léegi affaire yi sax daf man ba parce que man dama xamul affaire yi affaire yi su ma ko déggee sax sama fit bi du daal. Mhm. depuis boobu ba léegi moo woor ni ba léegi mënu ma fexe pour ma ndogu sax problème mhm. ba léegi affaire dama koy imaginer dama ñëw keroog fekk man fekkuma fi. Mhm. dama dama jéem dégg yuux yi ñu ne de kii mooy xeex dof nday ak benn rakkam léegi après ne si laa taxaw noonu nag may ne eh, après si laa gis kii Ndeye Balde noonu di ñëw mu kii xam naa affaire yi jàpp ko man xam naa tension bi moo yéeg léegi ñu ne doom ji mooy xeex ak kii léegi man ba léegi xaw ma woon ni sax sama doom bi moom si xeex bi la bokk après ne nekkate moom tam ñu ngi ko téye koñ bale ñu ne si xeex bi la bokk moom tamit léegi si lañ ko ñëwee indi affaire yooyu léegi après si lañ ne moom dafa am ña ñoo ko ni léegi moom si xeex Maodo si xeex bi la bokk mm-hmm. léegi après ñun ñu tëdd ba ay 2 heures du matin si la ñëw fëgg kër gi di après miy saaga yooyu di saaga papam léegi papam mu ne ko loo wax rek jëf mm-hmm. parce que ñuy fii yow man maa la yar mm-hmm. parce que tamit am na loo xam ne diggante ñaari kër yi lu lu ñaaw xaju fi daal waaye comme sa xol foofu la toll rek loo wax rek jërëjëf mu saaga après ba doyal mu dem léegi mu ne nag dinaa ñëw te sa doom dinaa ko jam ma xëyee suba si nag bu ma yeewoo noonu avant may dem marché maa ngi koy wax sama doom bu ndaw maa naan xam naa Maodo su may su ma jugee marché naa ko ne bu mu génn parce que kii ne woon na dina ñëw te dina ko jam après si laa tasee sama doom bu bu ndaw bi yoon filaaw ma jugee marché ma koy ne ana Maodo mbaa génnul mu ne ma Maodo de jam nañ ko ma ne ko si suba avant may dem marché maa ngi koy wax maam maa ngi ko naan Maodo de naa ko ne bu mu génn parce que kii ñëwoon na fi dem te neen dina ko jam bu yeboo nag mu moytu tey bu mu génn ne ko moom après man bu ma demee marché ñu si la ñëw fekk si néeg bi après papam yee ko fekk da doon nelaw papam yee ko après si lañ ko arrangé ñun ñëpp ñu génn ñu ñuy wax arrangé wax ak waxtaan ak moom daal après moom mu wax ne am na fii laa yaroo daal si kër gi comme ñaari kër yëpp benn la mu ne am na fii laa yaroo affaire yooyu bàyyi naa affaire yi mu sedd mhm. am naa dégg naa mu génnaat ba si mbedd bi xam naa xolam mënu ko muñ après si la ñëwee jël paaka bi après si la ko jamee ñaari jam-jam après ñi daal di koy jël yóbbu ko fële sami papam ak benn xaritam yóbbu ko sami si lañ ko ñaw noonu après kii ko def kii ko mu mu doon lu ñaaw mu doon loo xamante ni nit mënu ko rafetlu doonte sax fii la yaroo jege yantoo nañu mais mënu mënu kenn mënu ko rafetlu daal mais loolu bi mu amee xanaa dafa fekkoon ñoom ñaar yomal problème bu yàgg ba mu tax mu def lii tey. déedéet mosuñu am problème mosuñu am problème moom sax sama doom bi miinu ko noonu sax. uñu ko noonu waaye affaire lu mu mënti def ci lay nekk depuis 8 marsam bi sax toog na trois jours 4 jours nanguwul liggéey mi ngi si affaire am yi ñu ngi si yóbbu jëlee ay 16 indi di defar chaque jour su ko nee dama xëy mi ngi si affaire yi di kii mhm. nekk si moom si ay affaire am yëpp nekk si mhm. tamit xam naa tamit ay na foofu la xolom toll rek waaye ñii ay ay doomam lañu mhm. balaa mu doon kii mënoon na xalaat bu baax parce que tamit chaque jour lu muy kii xale yi nekk si même dem na def concert mbuur ñoom ñëpp demoon jël seen oto dem kon nag balaa mu doon dikkee mënoon na xalaat tamit parce ñaari kër yi tamit lu ñaaw xaju fi xam nga seen waa kër yi ñëpp ñëw nañ fi di baalu wala leen amul benn solo parce que àdduna amul solo waaye tamit muy muy muy xalaat daal xam ne xale yi ay doomam lañu parce que chaque jour ñu ngi ci ginnaawam parce que lu ñaaw xaju fi daal xaju fi lu ñaaw xaju fi parce que récemment lu yàggul dara gis nañ ko mu def benn interview di conseiller jeunes yi di conseil xale yi naan leen yoonu yoonu banditisme amul amul amul rendement yoonu banditisme du yoon bu baax yoonu banditisme na xale yi nangu liggéey na xale yi xam ni ci yi ñu nekk ay toxaka naan loolu jëmul kër tey kon bu ñu gisee li nga xamante ne moom mi ngi ko doon wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunes yi tey moom mu ñëw def jëf ji dinañu choqué dinañu dinañu jaaxal daal. waaw ñu jaaxal kay wax dëgg yàlla dinañu jaaxal parce que moom tamit comme moom mu ñu conseillé yooyu xale yi tey mu ñëw di def lii tamit ñu affaire yi dinañu jaaxal trop nag jaaxal nañu wax dëgg yàlla jaaxal nañ waaye nag ah ñu bàyyi yëpp suñu borom yëpp yàlla yàlla baax na parce que sànq ñu ngi dégg ñu naan am na xale bu mu ko def après kii moo nekk deuxième xale bi mu nekk ñaari nit yoo xamante ne def na ko ci en tant que Dof Ndeye loolu en tant que yaay boo fekkoon danga ci conseil loo koy wax ah, loolu xam ne rek xale yi ay ay rakkam lañu ay doomam lañu tamit lu mu munti tëdd demee tamit mënoon na di xalaat xalaat waroon na xalaat bu baax te xam ni tamit ñoom ñoo bokk xar yàlla te yi ay doomam lañu lu mu munti tamit mer mer mer lu lu te xam ni fi mu lu mu def nii sama doom tamit fii këram la xam nga te yëpp ñun ñëpp ay mbokk lañu tamit mu doon na xalaatam bu baax waaye tamit xëy na foofu la xolam toll waaye tamit waroon na xalaat loolu daal la am lu mu siy wax après loolu yéen maanaam ban matuwaay ngeen jël da ko bëgg teg ci yoon wala da ngeen bëgg a mu sedd nu ngeen def yéen xam bi waaw ah, ne woon rek nañ ko bàyyi mu sedd daal papaam loolu la wax parce comme affaire yëpp famille la daal papa mu ne nañ bàyyi yëpp mu sedd loolu la wax papam loolu la wax moom. waaw bu fekkee am na leneen loo bëgg jàllale lu ñu la laajul balaa ñoo yeewi jotaay bi. loolu laa am lu ma siy kon encore une fois dañ lay masowuwaat. di ñaanal ki nga xamante ni moom la jëf ji daal yàlla na ko yàlla may wér. te lii yàlla bu mu fi amati. waaw donte mënul nekk loo xamante nii lu kenn di rafetlu la comme ni ma ko waxee woon suñu njëlbeenu kàddu kon ñu ngi leen di masowaat encore une fois te di leen wax ni ñu ngi leen di jaajëfal ci euh, li ngeen ñu may ñu mën a waxtaan ak yéen bu baax jërë ngeen jëf merci